laaj la malade laaj ñett wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la malade laaj gis nga interview bi su euh, audition bi su guddee maa ko guddal audition bi mënoon na durer 15 minutes audition bi mënoon na durer fukki minute ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la malade laaj mu subsidi procureur ne dafa am ay mana ma ko duma tontu say laaj ndax parquet bo xamné ci complot la dëkk duma ko tontu té dina la wax fan ngeen complot yi la ci jox ay preuve mu lem ay bagasam tok ci la ci paré kon interview mu doon na fofu audience bi mu fofu man mako yok mako guddal parce que lima waron ma wax il fallait ñu bind ko ci dossier bi lan la wax doyen des juges te dina tëjee nak ay laajam lima ko wax moy, dossier bi, lañ ma ci jiin dara amu ci ay kàcc ci y'a la té yow doyen des juges yow bima inculpé bo amé ay preuve teg ko ci table bi parce que xam nga ak ak droit bo meuna jël muy droit canonique li ñuy wax droit wu diiné diiné chrétien comme diiné julit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor ki ñu ki tuumal moy andi preuve waye di ko ñu timal moy andi preuve suma dugon ci bureau mu andi ay preuve tek nema li de wane da nga def liñ la tuumal kon wax ji jeexna bu waaye amul benn preuve benn benn preuve boo xam ne doyen des juges génne na ko walla procureur ne liñ la tuumal lii la amut du benn preuve du lu ñuy xool du lu ñuy dégg du lu ñu bind zéro preuve un dossier vide bu amee preuve na ko génne amul benn preuve lu dul déclaration plaignante bi génnewul preuve naa ci dellusi nag benn preuve génnewu ko waaw ma ne ko nag bu ngeen amee ay preuve ana preuve yi parce que loolu day tax mbir mi gaaw dañu naan wàcc daanoo ci gën a gaaw man de su ma jiiñee nit dara bu ñu nee këtt ne jonn ma génne samay preuve teg ma ne ko nag comme amu leen benn preuve dossier bi 2021 8 mars 2021 biñ may inculpé la ma ci dossier bi moy liñu wax yépp weddi ko xawma sax lu nirok lolu liñu wax yépp weddi ko xawma lu nirok lolu waye yow ci lolu de mané ko en plus de ça nak dossier bi ab complot la. te complot bi ji ci nekk diw ak diw ak diw ak diw la kon dossier bi ñaari branche yooyu la dama bëgg Sénégalais yi déglu ma bu baax dama di kuñ doon jiiñ ba far tey man maa wëlbatiku di jiiñaate li ñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiiñ ba far man tey man maa wëlbatiku di leen jiiñ waaye senegal yi laa bëgg ñu déglu lii may wax nii man mi ñu jiiñ ñoom indiwuñu benn firnde benn preuve ci liñ ma jiiñ man mi leen jiiñ dama indi ay preuve teg ko ci table bi lan laa leen jiiñ dama leen jiiñ ne complot la boo xam ne ñoom ñoo ko organisé su ma nee ñoom nag dinaa lim ay nit fii yoo xam ne ñoom ñëpp seen loxo dafa takk rëpp ci complot bi nee naa leen complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la République mi ngi ci daanaka moo ci ëpp sax ay ay agissement ki ko jàppale dëgg dëgg dëgg ci li mu doon def mooy commandant abdu Mbeng tey defe naa colonel la waaye jamono jooju commandant la woon ka ca tegu te loxoom tax rip ci complot bi mooy général Moussa Fall

ñu tek ci maître Dior Diagne bi nga xamné ci lañ ma wax soxna la ci Antoine Diome bu len faté ni Antoine Diome it lu ne mu ngi koy daj ci mbir mi bañ na ba mo dem jël ay ay wa bip ne moy moy moy moy ar ndaw sa diko rawale ma nga sali gannaaw suba mu nga Dakar gannaaw suba mu nga fili ñu tek ci Mamadou Mamour Diallo bi nga xam loxam tak na ci rip waaye ñooñ ñëpp boo leen dajalee nag seen digganteeg Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge war a mënal lu ñëtu la te teg ko fu ma teg nag li ma wax mooy yàlla dafa def ñoom bi ñu commencé ba léegi lu ñu nas rek yàlla génne loo xam ne foogewuñ ko déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité am na élément yu bëri yoo xam ne nekk na ci déjà naa ci dellusi waaye yàlla dafa def bi coow li amee gendarmerie nationale ci njiitalu général Jean-Baptiste Tine comme coow li dafa bëri woon ba gendarmerie nationale jaxasoo ci mu am coow ci biir gendarme yi général Jean-Baptiste Tine bi nga moi haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire